Ablaye Wade ak bu Senghor am na logique. bii amul logique. parce que fi mu ne nii yooyu seen borom jàpp nañ leen jugé nañ leen ba pare condamné nañ leen ñu mm. amnistier leen. Mm. mais ñun lii am amnistier xamuñu ñan ñoo ko def. dëgg léegi dañuy bàyyi noonu rek xamuñu ñan def ñu ne buñ ko wax buñ ko tudd bu jaaroon yoon. Mm. ñu jaarale ko ci yoon kon kenn dootu ko waxaat dañ naan voté nañ ko jeex na dem nañ. Mm-hmm. mais jaarul ci yoon ñi ñu rey ñan ñoo leen rey. police bi dem tëdd ci oto. fii euh, xool booy bu ko neex mu yore drapeau vert jaune rouge mu tiire ko bal mu dee mu jéggi ko dem yoonam te mu ngi fii ñuy affecté bari ki dem bu yàggul. Ah loolu away ah fa mu nekkoon jóge na fu commissariat ba mu nekkoon jóge na fu ñu ngi ko affecté feneen pour wax leen ne la nit ñi xam nañ leen du ma wax sax ay la numéro 9 ñooñu moom c'est terre à mm. bébé bi nekk ci biiru yaayam sax mën na xam ñi ñaan la mais jël ay nervi loolu dafa mosul kenn da ko moste ñeme biir Sénégal. bu njëkk bu njëkk ñi fi jiitu daan nañ def ay def-def mais def-def yooyu dañ doon dañ doon nëbbatu gis nga bu njëkk maa ngi koy wax démb rek. ne leen mais réseaux sociaux yi aussi. nekk non non non waaw rek bu baax a baax a baax a mm. baax xam nga boobu moom. mooy opposant bi gën a doy waar te mm. nit ñi xamuñu ko. Mm. moo moo opposé wu Amérique ba fal Obama. moo opposé wu feneen ak feneen ak feneen. mais loola ñàkk xam àdduna moo tax ngay dem ba yenn yi. ñàkk ko def moo gën mais di def tooxi doona dem ba xam ni fi mu ne boo xefee sax yow yaa ngi teg ay caméra ci biti ci mbedd yi boo xefee la ngay def caméra yooyu ñoo lay feeñat mais nga xam na nga koy defe bu njëkk est-ce que nga ni université daan nañ fa dugal ay nit mm-hmm. ñu tëj ci étudiants yi ba ñu nooy ci jamono idaay ba ñu mel ne farine. moo tax ma la réseaux sociaux yi moo sonal. xoolal bu ñu xëyee wax yooyu doo ko dégg sax. <laughs> bu ñu waxee sax doo kenn du leen gëm. tey ngay sonal nit ñi <laughs> ngay sonal nit ñi tey nekk ci koñ mais bu njëkk parti yu fi jiitu woon xamu nu ñuy def hmm. dañuy wut benn bandi boo xamante ni ma nga dëkk fu kenn xamul hmm. dañuy toog rek kar la taxagne la yóbbu la gas la suul la. <laughs> imam pour jeexal si wàllum amnistie bi euh, ñëw ci vraiment ci euh, question euh, euh élection bi nga xam mën nañ wax né vraiment euh indi won aussi coow si espace public comme que amnistie ene kay mhm. li nga xam mo nek nekk les faits te fee Ousmane Sonko de si dugg Ousmane mom kañ lay génn. Ousmane kay am benn fait bu mu def. Mhm. Ousmane Kay buñ ko am dañ ko dañ ko togn rek né duggal nañ ko ci amnistie. waye Ousmane non j'ai pas dit que dafa def ma ne fee yooyu.

Eh, mais dañ forcément dañuy génn. imam ak Diomaye war a jógee Cap Manuel. away away away kii dem ah Ndiaganiao kii dem euh, Fene. nu mu koy waxee sax non non da nga naan da nga naan déedéet da nga naan. oui. da nga naan eh, non kenn mosu ko gis loolu expliqué ko sax da ngay da ngay beneen affaire ngay am da ngay amee yoo xamante ni mu ngi chair de poule <laughs> Diomaye toog nii Diomaye toog nii. teen xool Ousmane. ndeysaan Ousmane yëkkati loxo bi. drapeau Sénégal nekk ci seen gannaaw. waaw loolu kenn attanu ko. ndeysaan. juróomi fani campagne sax ëpp na ci. ba xale yi ndiiraat. juróomi fani campagne gis nga lool nag. maa ngi ñaan nag ci à travers à travers sa caméra bi à travers sa caméra bi. damay damay ñaan autorité yi rek. ñu sécuriser ko te ànd xolu muñ. Ah waaw nañ ànd xolu muñ ñu bañ koo def nag yoo xamante ni woy dañ koy jël fa mu nekk dugal ko ci seen oto yooyu xam nga. tey de passage de passage xam nga fan fan de passage gis nga. sa sa ki nga sopp ñu jël ko tëj ko ci kaso lor ko gis nga buy dem ba génn mooy dàq suba la tabaski ci yow xam nga misaal bu may joxe il fut des temps mooy jamono bi ñu jàppee président Khalifa Ababacar Sall ñu nekk man dem naa ba màkkatal mu kanam di ko defal live ah ba ca ba ca ba ca Arafat hmm? dojo Arafat bi di ko defal live naa la partage vidéo yi mais gis nga keroog bi ñu ma yëgalee ni day génn tey tey tey mais mani la su ma la waxee ne la baobab laa doxee ba biir rëbës doo ko gëmee. politique baaxul te léegi tàkkoo ngeen. déedéet ni mu demee la rek yooyu ñoo jëlu <laughs> dugg ci détail boobu détail yooyu moom buñ ci duggee mais dama lay wax rek. ni mu mel keroog xoolal yemuñu foofu. dañu jógee rëbës. Hmm. ndeysaan di daw di daw ñu ne ñu fii ngeen di jaar buntu buntu masalikul jinaan. Hmm. xoolal rëbës ba masalikul jinaan. Hmm. ñu dox ba Masaalikul Jinaan mu wàcc ci tali bi nuyoon teeg ña fa nekk continuer mhm. ñu dem ba Grand Yoff ci guddi gi ñu toppaat ko ba Tiwaawan mhm. mu soog a dellu si këram xoolal coono boobu yow boo demee sa kër xam nga kañ nga ko yëg deux jours après nga yëg ni lii ma tracé bi ma dox ñaata kilomètre la yaram bi si commencé di fayu comme on le dit. mu ngi noonu yoy dafa nek yo xamanteni ni. jaar nañ ci jaaraat ci. Mhm. Ablaye Wade jamonoom de même. Mhm. Idrissa Sek de même. caravane de caravane de chamo biñu defone defoon. Mhm. Euh, ni ñu ko tuddee ci campagne président Ablaye Wade bi ba ñu exiger ñun ñep ñuy tak bretel ak chemise bo xamanteni chemise bleu ciel pantalon bo xamanteni pantalon bleu de nuit foncé. c'est la marche bleue non. ah oui mais bo, jamono motax moo su gaa di wax légui man. mais lii dàq mu ngi ñëw mooy bis bu ñuy dem ba président Ousmane sunk di génn jomaay nekk ci wetam ah no non non loolu loolu dama koy jëndee nii rek ne yaakaaruma ne yàlla bu ñu dem nag ba taxaw ba taxaw nag ne campagne bi jox leen Ousmane mais def na ko sax ndeysaan xoole ci campagne législative yi bëgg Sonko nag bari ñu yeggali. déedéet mais campagne législative gis nga ni mu demee. waaw gis naa ñenn ñi ñu ngi naan ñu ngi doon wax sax seen leader naan leen way da ngeen a bàyyi kii muy wax rek dem leen ngeen jël gis nga. <laughs> gis nga xorom si te moom moo yor xorom si. xorom si xorom si mënoo ci dara xorom si même daje yi ñuy def ay conférence de presse ak yooyu. ndeysaan da ngay gis ne da nga koy da ngay yërëm ñeneen ñi. conférence de presse boo fi gis xoolal comme ngi melne comme sa télé bi ñu xol ci ñaata nga toll est-ce que yaa 1000 ou yaangi 500. nattal li ma la wax bu fekkee ni yaa fan fan nga toll ni ci ñi koy suivre. 300 yaangi ci 300 léegi. gis nga bu fekkoon ni Ousmane Sonko mo wara jël parole. nga toll ci 300. da nga gis affaire bi ne fër. bu sa sonn 9000 10000 11000. non la mel ci jëm nit ñi. li ko waral nag. mooy dëggu gi mu deggu yalla moy def loolu ko ci yalla saxal. machallah imam ñu dugg suñu deuxième partie.